وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر ۖ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ۖ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر تلاوته من صعب أو نسيان أو تعريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو طويل على خير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سيخ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إسهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمعصم من كل إرحام وارفقنا فضل من خير ومعديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تغتم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الخفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واحتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ضيان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أعواننا وذهاب غمومنا وخائلنا وسائقنا إلى جنة النحيم اللهم اجعل اللهم اجعله أن يتنا في الوحشة ومصاحبنا في الوعدة ومتبعنا في الظلمة ودليلنا في العيرة ومنقذنا في الفتنة واحسمنا به من الزيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اقتم بسعادة آجالنا وحقق بسيادة آمالنا واغرم بالعافية قلوبنا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واصبر سجال عفوك على سنوبنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بالسرح يومنا اللهم اجعل تقواك سادنا وثقتك بصهرنا واحتقالنا وامن من الجوع والخف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اللهم بلغ ثواب ما خرجناه ونور ما طلبناه اللهم بلغ ثواب ما خرجناه ونور ما طلبناه اللهم بلغ ثواب ما خرحناه ونور ما طلعناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وثرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الفاتحة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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam te moo di assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ñun ñi ngi sant yàlla bu baax ci tawfeex gi ñu def ci bis bu mel nii nga xam ne bis bi li ko sabab tawat la woon su aman ci réew ñu yóbbu suñu àddiyee ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu Cheikh Basir yàlla na fi yàgg te mu toll woon ci ñetti million ak aslëf ci la waxe woon ne sant nañ leen gërëm nañ leen di leen ñaanal yàlla ngeen dajeel ci ngërëmul Sëriñ Tuuba yàlla na ko yàlla def ci ñun moo waxoon ne benn fanab rajab mooy doon seen bis li feek ñoo ngi ci kaw suuf na ngeen koy jëfe te ànd koog jullit ñi ànd koog waa Pàkku Làmbaay gépp ak mbooleem fu waay nekk te bëgg cee bokk kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ko ci gërëm ndax benn fanab rajab moom kenn ku ne xam ne ne kun ko tànnal ku ne bëggal nañ la tawfiix kon alhamdulilahi rabbil alamin sëñ jib ne mi ngi leen di nuyu di ko tàmbalee ci suñu kilifa yi toog ak waa gox bi ak waa dëkk bi ak waa pàkku lambay gépp ak mboole seen daaira bu ci bokk kenn ku ne ci njiit la nga ci bokk ci njiit loona rek ci lan lay sant te di la gërëm di leen ñaanal yàlla ñu bokk ci bay di sëñ Tuubaa naan waq di xawaaji lasina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu yàlla na suñu borom boole Cheikh Abdoul Ahad jàngkati alxuraan yi gërëm nañ leen sant nañ leen heure bii daaw lu mat ñaari téeméeri doomu aadama daje nañ fi ren gis ngeen ni mu demee mais positif alxuraan bi ci la gën a gaaw ci loolu lañuy sant yàlla ndax Badar mbooloo mu bari xeexu ko woon ndimbalul yàllaa ko xeex akum xel ak pastéef ak ak takku ak dëkk tey dafa feeñ ci suñ bisab suñ kaamil bi ñetti kaamil yoo xam ne matut ñaari waxtu kon mbooloo moo bari takku ci njàngum alxuraan pastéef mooy jàng alxuraan yal nañ ci yàlla defal lu koy suñ jot te bokk ko jullit ñëpp di ci di ci ñaanal yàlla mbooleem ñàkk waaju yàlla na ko suñ borom yërëm ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Mustafa programme bi nag day wéy su xatmu bi jeexee kuréel yi njàngum durusum xasida yi lépp day continuer dara di ci taxaw ba feek suñ borom di ko matale ci heure ba ko soobee yàlla nañ ko fekk tel ko te luñ fi liggéeyal yàlla ci loxo sëñ Tuubaa yàlla nañ ko yónnent bi tiil defal ñu ko ay tawfiix wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gërëm nañ leen sant nañ leen sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey